àll bi fu ñaxe fu ñaxe yóbbu leen ma fa fu xat yóbbu leen ma fa fu ñax yóbbu leen fa ma leeral leen ko nañ. jërëjëf yàlla ñu nekk fi suñu kanam. jërëjëf Cheikh Amadou Bassir nag sas nañ ñëpp. billaay barke sëñ Tuubaa sas nañ ñëpp ngir li mu baax ànd nañu booloo nañu juboo nañu. siggal ngeen seen maam ak seen baay de barki sëñ Tuba ma ne siggal ngeen seen maam ak seen baay de waaw loolu loolu fii mu ne yéen yéen a ma fi baax ndax damay xool ci yéen rek bëgg bëgg bëgg ma lu rëcc ah, su yéen a ma fi baax de ah yaaree sama manque téeméer de waaye dama ne daal bu ma woppee bu ma dee nañ ma suuxee ko bu kenn yóbbu Touba fi ndigal li mu jëlaat laa fi des rek dama leen ni yéen a ngi ne fu ma bàyyi bu ma kenn jàngat jàngatee naa Touba naa des xel comme rek ñu suul ba mu koy mu koy bakk toor yéen a baax a nu woon yoon ba nu aw yoon yéen a nu noppal bëgg publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc